asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers seen chaîne Equivox TV votre télé à portée de main ça comme ça su ne ñu ngi am contentement ak mbégte di jàkkaarloo ak yéen. tey nag dañu dem seeti koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci musique sénégalaise koo xamante ni papaam monument la woon koo xamante ni papam ñëpp xamoon nañ ko ak ay jalooreem kooku di Ndiouga Dieng doomam bi ñu seeti nag mooy Momo Dieng Momo Dieng borom langue ji Momo Dieng bi xew ci jamono Momo ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum euh, Sénégal salaamaaleykum àdduna euh, maa ngi nuyu ñëpp. képp koo xamante ne rek jamono ji yaa ngi ñuy suivre maa ngi lay nuyu bu baax vraiment di la nuyu di kontaan lool aussi eh, ngeen déplacé wu ñëw fii bon vraiment bég naa lool. Momo Dieng mën nga ñëw ci sa parcours. waaw euh, sama parcours euh, mën naa ne bon nañu way mais euh, ci année yi ñu ràññee 2015 ba 2017 ñu def album langue yi foofu nag la sénégalais yi gën a ràññee Momo Dieng euh, depuis boobu ba tey nag ñu ngi ci euh, di di dox ndànk-ndànk cempo cempo di liggéey et que boobu ba tey sénégalais yi tamit aussi vraiment ñu ngi ñuy suivre di ñu topp àdduna tamit di ñu suivre di ñu bëggee euh, gis naa ne daal mën naa ne parcours bi buñ koy wax sax. fii la ñuy fanaan mais dañuy tënk rek. avant 2015 2016 yaa ngi doon def euh, ay première partie ak ki nga xamante ni sa grand frère la ñu koy woowee Alpha Dieng. moo tax moo tax ma da xam nga dama ndar képp rek dama ko kii rek tënk waaw ah, parce que bon ñu ñàkkul ne ñu bëri xam nañ fi ñu jaar aussi euh, parce que tamit euh, bari ñu lañ jóge mën naa ne way dañ ko doon. ci sunu ay maam la wàcc ba sunu papa ba ci ñun ñi donc euh, mën naa ne nekkoon naa ci benn environnement boo xamante ne soo woyul euh, da ngay tëgg tamit ay ay ay géwal lañu euh, mais n'empêche nag ñoo am chance tamit fekk sunu mag di ci yëngu muy alpha musique booba créé booba temps yombul sax nga taxawal groupe moom moo amoon chance tamit taxawal benn group yoon wi groupe la ko tuddewoon euh, ñun nag euh, li ñu doon nekk nag influence bi nag foofu la jóge ci répétition yi nga xamante ne dañ ko doon assister waaw des fois di sàcc di déglu influence bi foofu la juddoo ñuy raam ndànk ndànk ndànk ndànk ba benn bés rek mu bettuñu man ak sama cousin bu naan Fall Ndiaye moom temps boobu sax moo nekkoon waykat nam moo naan dem ci làmb yi ci xam fu ne di fa dugg moo amoon fit waaw man moom mooy loolu euh, aw ma woon fit temps boobu dama ragaloon moo mun a nekk booy nañ dem fii nañ dem fii nga awuma boo may aw non kenn du la gis dañuy taxaw ci gannaaw rek <laughs> waaw ñuy dem di dem ni ñuy gën di dem nag affaire yi di gën a ñëw ngay gën di bëgg ba bés alfa invité ñu ci seenam bettu ñu rek invité ñu ma woy ah bi ma woyee nag ci laa xam ne nag ah wax dëgg yàlla lii du caaxaan lii mu ngi ci man ndegete man am na loo xam ne mu ngi ci man kon donc dama ko yee rek talent bi muy ngi ci man boobu nag depuis boobu mu intégré ñu ci group am ñu nekkee ay xale yu ndaw boobu boo gisee xale buy woy sax daf lay impressionné waaw ñuy nekk ci ginnaaw bu <laughs> ñu naan way sa micro yi dañ ñu ko doon wàcceel bu baax a baax parce que tellement dañ gàttoon mu imposé ko nag xam nga dañoon ñëw temps boobu ñëwee buntu soirée yi lañ ñuy téye bu defee mu geer ko nag mu ne leen ñaar ñi ñoo may aw samay rak la ñoom ñoo may aw boo leen leen ci buntu bi man duma am ko ma aw parce que boobu dañ tuuti woon waaw te dañoon interdit temps boobu xale yi di dugg ci boîte yi wala affaire yooyu bon mais nag mu geer ko xeex ko ba ñu ñu ñu ñëw di aw di assurer des fois ñu assurer sax première partie yi xam nga muy dem ndànk ndànk ndànk ba mu créer ñu benn morso temps boobu ñu woy ci xale yi affaire yooyu ñu woy ci xale yi c'était en 2003 je pense waaw 2003 lañ njëkk a def single euh, tuddee ko dañuy coow waaw maa ngi fàttaliku sax moom lañ présenté woon deuxième show ak euh, Pape Cheikh Diallo. lépp dama doon bëgg a nekk ci ginnaaw di jàng di jàng ci moom paa bi tamit même chose moom des fois bon mu jël ma ne ma bien vrai que daf mënoon daf doon bañ temps yooyu way yi parce que mënoon wax ne ma lii dafay yàq sa jàng et xale nga ah mais des fois daan na ma sàcc tourné wu moomu kaay gunge ma fii kaay xam nga bu ñu ma awu ko waaw ah, mais boobu nag dafa bëggoon ma gën a jàng. et que maa ngi doon jàng sax boobu mais pour lu la perturber sa jàng te musique dafa xaw a fiir tuuti daf noonu yomb waaw moo waraloon mu jële ma bari ñu indi ma dakaar pour ma yeggale samay études fii pour que pour que rek affaire yi bañ a yàqu parce que daf noonu wax naan alpha bu ma la toppee di nga yàq jàngal <laughs> kuy sa baay ñu ne la Ndiouga Dieng rekk tënk na lépp euh, mën na ñëw ci sa diggante ak waa Prince Art parce que seetlu nañ ko looy def lu nekk foofu lay jaar. waaw sama diggante ak euh, Prince Art nag mën naa ne suma label la bu dul dara euh, professionnellement dañuy liggéey donte sax bon famille lañ parce que tamit lépp lu ñuy liggéey ak man. seen doom laa seen doom laa jàpp nañ ma seen doom xam nga ba sax des fois yenn liggéey yi sax niñ ma ci sonjee noonu da ngay xam ne ñoom sax ñoo ma koy gën a bëgg waaw ah, mën naa ne daal euh, label la label bu professionnel label boo xamante ne bon mën naa ne Sénégal ñoom ñoo fi nekk ci label buy produit actuellement parce que euh, jomul ne Sénégal amatul mën naa ne producteurs yi bareetuñu donc mën naa ne label boobu rek moo fi nekk et euh, ñu ngi jàppale artistes yi bu baax a baax a baax a baax a baax et que man fa nekkee ba tey wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax maa ngi ciy gis sama bopp macha allah label boo nekkee foofu da ngay signé ak ñoom ay contrat nga signé contrat bi jeexee mën nga ko renouveler tout comme mën nga arrêté dem signé ak keneen. waa loolu nag xam naa ne loolu moom wax dëgg yàlla duñ ci duñ ci mën a sori parce que tamit euh, suma label lañ ni ma ko waxee sànq mais suma famille lañ bi daf ma leen dénk aussi ñoom it euh, ñu def ma comme doom boo mu fekkee foofu ngay xam ne donc dañ ma def comme seen doom donc euh, fi mu ne nag xale bu ndaw laa <laughs> tolloogu ma dama toll ci euh, ñu may encadrer di moom mënaat manager waaw parce que tamit ñoom loolu lañ lay def dañ lay encadrer manager la ba tànk yi dëgër ah après nag yàlla nag moo xam euh, génne woon nga fi langue gi mu cartonné moomu kan moo lay bindal say waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax ba dañuy liggéey ci côté boobu bu baax a baax a baax euh, foo ñu fekk ñu ngi yor sunu instrument euh, des fois ñu teg suñu kay di bind euh, tàmm la rek ah parce que tamit ça dépend ci environnement bi nga nekk tamit ñu am ay encadrement boo xamante ne gars yi nekk sama ginnaaw samay frère lañ samay mag lañ te lépp lu ñuy def ñoo koy defandoo ensemble lu ma sentir wala lu ma créer lu bees damay toog jouer ko seen kanam way waaw ñu déglu ko xam ne war nañ ci yokk lii war a war nañ ci wàññi lii bien vrai que man maay bind waaye du man kese bon li nekk ci gannaaw peut-être que ñii xamuñu ko waaw vraiment yàlla may na ma chance nag ba am naa xalaat am naa am naa xel boobu damay bind damay damay xalaat bu baax ci ci côté texte ak euh, yu mel noonu ah, mu ngi noonu. gis nañ yow ak Wally Seck ngeen génne benn woy bu neex. Mhm. ki nga xamante ne mooy seen papa. Mhm. Euh, mën nga ñëw ci loolu. waaw euh, maa ngi koy nuyu <laughs> sama frère sama xarit waaw ah, mën naa ne tamit lu nice na mu nekk idée bu nice mu ngi ko def ci album bu bees bi mu jéggi ne récemment symphonie. Euh, invité ma ci mu nekk euh, lu ñu rafetlu lool Ndiouga jëm moom defe naa icône la woon ci musique sénégalaise euh, bu dul waale sax artistes yi yëpp war nañ ko mën a rendre hommage parce que tamit mën naa ne liggéey nañ ko fi orchestre Baobab ku ne xam ne ne orchestre bu mag la war na fépp dem na fépp ci àdduna bi donc wale tamit def lu rafet njëkk bi mën naa ne mooy artiste bi njëkk a def loolu ñun sax moo njëkkër a rendre hommage pa bi nee naa ko ñu waxu ko <laughs> mais tamit mu nekk lu nice loo xam ne sénégalais yëpp a ko lu vraiment àdduna yëpp a bëgg morso bi morceau bi moom dégg defe naa bokk na ci morceau yi nga xamante ne mooy faar ci album bi vraiment ñëpp dañ ko bëgg dañ koy bëggee bu baax parce que tamit euh, loolu dafa naa loolu mooy Sénégal loolu mooy musique sénégalaise mooy future yi xam nga loolu lu war la ko pour man bu dul waale rek mais artistes yëpp war nañ di man di def loolu euh, yaa ngi war a génne benn album prochainement mm-hmm. album boobu lan lañ ci mën a wax waaw euh, album bi incha allah ñu ko war a génne le 19 mars muy Thieyly mooy deuxième bébé bu Momo Dieng euh, mooy wax sénégal yi ñu waajal ko rek parce que tamit euh, dina nekk am nay ay surprise yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir waaw defoon nañ langue yi gars yi ko waaw defe naa bii nag day joogati incha allah rabi ñu ngi leen di promettre album boo xamante ne c'est du lourd allah. waaw morceaux yi nag nañ ko xaar diis ba douze morceaux comme d'habitude et que album bi bu génnee tamit di nga ci dégg yeneen touche yoo xamante ne di nga xam ne Momo Dieng ah am na beneen vision ci musique waaw. waaw Momo Dieng am nga jabar. déedéet jabar. mais am nga ku fi nekk jabar jabar nga ma laaj. da ne ma ndax am nga jabar mais amuma jabar. <laughs> jabar kon est am nga coro. non mais foofu nga waroon a njëkkee foofu nga waroon a njëkkee déjà jabar nga ma laaj ba pare boo ma laajee am nga jabar tamit amul leneen lu ca xaj am nga jabar amaguma jabar bëgg naa am jabar nag. léegi ba tey tontu woo. bëgg naa jël ah. léegi ndax am nga coro. mais dama ne la bëgg naa jël. boo seetloo am na sax ay site yu partagé say vidéo ak ki nga xamante ni mooy bitti bi nekk ci poté mhm. euh, ne mooy sa gel. waaw xaw ma mooy sa coro. Ah. léegi yow yoon la nii pour nga leeral. pour ma leeral. ndax moom sama sama coro la. est ce que war naa mën a leeral ci loolu de. pour ñi la bëgg bëgg xam. non loolu duma ko leeral léegi <laughs> loolu mënuma léegi <laughs> damay bàyyi gars yi ñu lël mbët ba ci kanam. Momo Diagne sa album bi war a génn prochainement lan lañ ci xaar ban jour lay génn exactement. waaw album bi euh, mi ngi génne le 19 mars incha allah ñu prévoir génne ko euh, liñ ci mën a xaar nag bari na parce que tamit aussi def nañu style de musique yu bare bare bare bari bon récemment morceau bi mujjee génn rek euh, single bi génne muy chéri koko bañ ko déggee xam ne tamit voyagé na moom moo voyagé na tuuti ci côté bon boo déggee sonorité yi dem nañ def nañ leneen parce que biir yaa ngi ciy dégg afrobeat ñu dem Nigéria xam nga def ko dem seeti leen tuuti boole ko ak sunu musique coloré ko parce que booy xool mbalax bi dafa nekk Sénégal tamit ñu génn na voyage yi donc moo tax tamit ak yeneen yuñ ci mën a xaar ci album bi bëri na ay titres yoo xamante ne c'est des titres maa ngi promettre daal Sénégalais yi ne c'est du lourd allah yan programme nga teg bu album bi génnee ba pare. waaw teg nañ programme yu bari man ak euh, Prince Art ak suma suma staff gars yi liggéey liggéeyal déjà bu génnee war nañ def ay caravane yoo xamante ne dinañ fexe bon dinañ wër Dakar yëpp ba génnee dem ba ba Sénégal yëpp sax bëgg nañ ko fa def parce que tamit aussi fan club yi ñu ngi fépp euh, langue gi club Momo Dieng ñu ngi fépp donc euh, déjà ñu ngi teg benn programme boo xamante ne su génn album bi génnee déjà dinañ def ay tournée ay concert fépp foo xamante ne fan si nekk nañ fa dinañ fa fekk ak euh, programme bu mag bi nga xamante ne ñu ngi ko war a def le 15 juin incha allah ci esplanade Grand Théâtre waaw fi ñu daje nag mooy show catch bu mag bi nga xamante ne war nañ ko def ñu ngi ko prévoir le 19 même euh, ci rond point Yoff caravane bi foofu lay démarrer bon séance d'écoute bi nag ñu ngi ko lundi le 18 lay nekk le 19 bu ko defee caravane yi mën a commencé ak showcase bi nga xamante ne benn concert bi nga xamante ne ñu ko prévoir def ko ci rond point Yoff incha allah ak yu bare bare bare yoo xamante ne daal mi ngi ci biir defe naa buñ ci yeggee rek dinañ teewaat fii waxtaane ko xam nga dina disponible fépp dina disponible ci euh, euh, iTunes ah pour ñi nga xamante ne ñoo nekk Europe te ñu bëri mën jotee Jaba Music euh, Spotify ak bon ak Euh, plein de kii yoo xamante ne de téléchargement yoo xamante ne album bi def nañ ko déjà mu ngi ci affiche bi buñ fa demee dinañ jënd album bi waaw may kontaan lool ah Equivox TV vraiment di bëgg lool seen teewaay fii ngeen déplacé wu ñëw seet si ma vraiment ma kontaan lool di nuyuwaat Sénégalais yëpp. Euh, di dénkaat sama bopp fan si di nuyuwaat euh, kilifa diine yi kilifa aada yi képp koo xamante ne rek yaa ngi ñuy suivre maa ngi lay béggee bu baax a baax di sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax a baax a baax di ñaan jàmm na ci Sénégal ci réew mi comme d'habitude ñàkkum juy sama xel mi yett ma sama xol bi jooy mali bàyyu benn gaanu dama topp di ci joo tëdd tëdd van la xaw kenn xaw ma nan la koy waaye xam naa ni di du jaasi yàlla buur bi la ñuy di du jaasi yaa ñu moom fekk ñu ci yu baax amina amina amin amin amin yàlla na yàlla nangu ñaan amina amin tirar.